maaleykum salaam kilifa gi euh, daleen sant bu baax a baax di sant euh, waa Xaas TV di ziar suñu mag suñu xarit muy Ablaye job Xaas di ko ndokkale ci bésam bu rëy bi di ko ñaaral yàlla yàlla na ko ci yàlla defal njaboot bu barke yàlla def sëy bu barke tamit Ablaye Diop Xaas moom suñu lépp la suñu xarit la suñu lépp la kon donc bés bu mel ni bu dalee ci koom dañuy teew mu nekk suñu nit bu baax ku ñu fonk nag boo xamante ne lépp loo mënta soxla rek. boo ko waxee dinaa la ñëwal kon donc genre nit yi mel noonu dañ di bàyyi ak yàlla yàlla rek lañ ko mën a bàyyi amuñu fayam daal moo tax lii ba mu amee ba ma ko waxee ma bàyyi sama yitte yëpp daw ñëw ndax nit amul lu lu dul bësal ñu fonk ko trop nag bësal bi tey bu fekkoon ni dafa am loo xam ne ñaan la parce que day ñaanalaate waaye tey moom mi tey soxla na ñaan ci digganteem ak soxna si waaw luñ ko ci mën a ñaanal xanaa sëy bu barke rek ak njaboot gu barke waaw yàlla guddal seen fan boole seen i wërsëg waaw ñam ci njaboot gu barke nag njaboot yi tegu ci diine lislaam loolu lañ koy ñaanal